jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw jàll mu nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité euh, Mara Diop ñu naan ko Ousmane Diop mu nekk responsable politique APR ci fi nga xam ne mooy département bu jurbel commune bu Ndindi. Euh, élection locale yi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal moom mooy euh, tête de liste euh, defar sunu gox ci commune bu Ndindi moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci élection locale yi Mara Diop maa ngi lay nuyu. waa jërë ngeen jëf mbokki réew mi FM maa ngi leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di nuyu auditeurs yi ak spectateurs yëpp ci yi nga xam ne ñu ngi teewlu. Rewmi FM di sant Abdou Khadre di leen gërëm ci seen pragmatique ak ni nga xam ne moom ngeen taxawoo mboolem kuy responsable politique sans exception pour que la nga xam ne nii jàpp na ne luy doxal réew mi la mu yëkkati ko feesal ko nit ñëpp dégg ko ñu ngi leen di fay kenn ku ne turam ak santam. d'accord Mara euh, dina ñu wax lu yaatu yaatu ci euh, élection locale yi ak euh, rejet yi nga xamante ni gis nañ ko ci yenn ci ay liste ndax yow coalition bi di defar sa gox yow yaay tête de liste bi mandataire bi fi nga xamante ni moom mooy commune bu Ndindi dinañu waxtaanee commune bu Ndindi tamit ci ci ci lu yaatu waaye fi ñuy commencer rek mooy acte actualité bi fan yi dañoo gis euh, Barthélémy Dias bi ñu koy woolu euh, mu war a wuy ji mu àndak ak Ousmane Sonko am ñu ko gunge ñu renvoyé àtte bi euh, jàppante commencé woon naa am am ñu tàmbalee jàppanteek takk der yi ñoom dañu jàpp ne état bi daf ko def pour gàllankoor Barthélémy Dias yow lan moo ci sa xalaat. waaw sama xalaat du ci sori ndax dama jàpp ne Barthélémy Dias biñ koy convoqué je pense que ni Euh, ça fait yàgg na moom xamoon na ne heure boobu lañ koy convoqué mais lépp lu nga xam ne liñ ci indi muy xalaat mooy réew mi moment bii ñu nekk lépp loo xam ne lu koy lu koy yëngal wala lu koy indi fitna daf ciy gaaw lool bu ma sañoon may invité état muy bàyyi xel ci lu bare bare bare parce que moment bu sensible lañ nekk moment bu difficile lañ nekk moment boo xam ne ak euh, tolérance bu am solo mën nañ ne moom lañ ci war a doxal mais Barthélemy Diaz euh, damay damay ñaawlu aussi côté bi nga xam ne nii tey jàpp naa ne bañ leen convoqué euh, ñu rax ci politique ndax jàpp naa ne moom ci boppam moo defaatoon appel bi mu defee appel it wëlbatiku ñu ñu ñu moom xamoon na ne euh, bis boobu lañu koy la ñu koy convoqué booba yàgg na c'est c'est pas des mois c' est pas un mois c' est pas deux mois moom xamoon na boobu lañ koy. kon yow danga nga jàpp ne loxo politique nekkul ci ginnaaw. loo loxo politique jàpp naa ne loxo politique nekku ci yoon dafa am yoon dama wóolu sama justice su dëkk euh, loxo politik mën naa ne nekku ci ndax dama wóolu sama sama sama sama sama sama sama justice su dëkk. waaw mais ñoom dañuy euh, wax ne justice bi deewul njaaxaanaay lu neex Macky moom la ñu def. non man loolu dàq naa ko tax parce que bërki démb bu dem naa ci yoon euh, ci ak état de gagné na ak ak ak ak ak parti pouvoir gagné ko donc kon jàpp naa ne euh, justice justice su Sénégal justice bu aw yoon la sama dëkk justice su réew wóolu naa ko te jàpp naa ne lépp lu nga xam ne nii doxal na ko lu neex lu xool lu neex Macky Sall wala lu neex Barthélémy Dias wala lu neex Mara Diop. d'accord mais xool li nga xam ne. yoon dogal na ko mu mu wax ko. waaw mais Mara yaa ngi wax ne euh, yaa ngi wax euh, ñu ànd ko dal moment bu sensible la ñu nekk mais bu passé Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko ñoom def nañu ay déclaration keroog wax euh, xale yi ñu ñu résister waaye tamit ci geneen wàll gi benn bokk yaakaar gis nañ ñoom ba Diattara ñoom Moussa Sow ñoom tim def ay discours yoo xamante ni tey ay discours yu violent la. waaw loolu man damay invité dama naan képp ku bëgg Macky ci moment bii ñu nekk képp ku bëgg président Macky Sall doo wax discours bi indi fitna ci réew mi parce que it ñoom ñoo nekk ñun ñoo nekk ci pouvoir bi nekk ci pouvoir bi nag bu ko taxee nga yëkkati violence yoo nga xam ne yu dangereux la yoo xam ne nii tey ku ko dégg sa fitna sa xool dana jóg kooko dama jàpp ne du koy defaral Macky waaye au contraire ku yàqal président Macky Sall la ndax it réew mi politique bu jógee jàpp nañ ne politique dafa jóg nañu ko def ci dal nañu ko def ci teey nañu ko def ci doylu nañu ko def gis nga li war a falu ak ki war a falu suñ borom bind na ko loolu pare na ci lépp luñ ci defaat lu koy ñaawal lu ñuy day ñaawal der yi rek mais daal damay a woote apaisement muy parti pouvoir muy opposition muy kum ci man di doon këne nañu ànd ak dal te xam ne réew mi kenn mënu ko taal ku ko ci bëgg a taali da ngay sonal sa bopp. waaw mais xam nga Mara tey euh, li nga wax ni am na solo mais bu ñu déggee euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci ko jigee di wax ne euh, bu ñu leen fi bu leen tax deuxième vague am ñi nekk ci pouvoir bi naan deuxième vague du fi amee da ngeen ñoo bettoon loolu dafa mel ni nekkul ay kàddu yoo xamante ni mën naa jur jàmm. waaw loolu moom laay moom laay wax ne képp koo xam ne yaa ngi yëkkati kàddu fitna. muy muy muy muy Moussa Sow muy keneen a keneen ak keneen képp koo xam ne yaa ngi yëkkati kàddu fitna jàpp naa ne taxawaloo luy defaral président Macky Sall parce que bëggu ko moment bi ñu tool arrangé wu ko moment bi ñu toll deuxième vague dañu ci sonal parce que dana yàq suñu économique lu bari dina gàllankoor suñuy emploi lu bari dina gàllankoor suñu dem ak dikk lu bari donc kon jàpp naa ne réew boo ko jiitee da koy jiite ci dal da nga koy taxawu ci dal mooy nag ña àll allié ak yow ànd ak yow nañu ànd ak dal moment bu sensible la ñu ne fitna xaju fi. d'accord léegi euh, Mara Diop euh, yow nga bokk ci euh, APR Benno Bokk Yaakaar euh, lu jëm ci wàllum investiture yi euh, gis nañ ne bëri na si ñoo xamante ni frustré nañ gis nañ liste parallèle yi bëri na yow noo ko jàngatee. waa loolu li ma ko jàngate mooy dafa am ñoo xam ne dañu nekk ci biir palais bi président joxoon leen confiance ñu trahir confiance su président boobu parce que umpule woon ne état xam na bu baax a baax a baax boo demee ndindi ka nga xam ne jàpp nañ ne buñ ko investir mu gañe état xam na ka nga xam ne jàpp nañ ko boo ko investir Mbàkke mu gañe boo ko investir Bambey mu gañe mais investiture bi kenn ku nekk xam na ne investiture yaama neex lañ ko defee investiture diw mooy sama xarit investiture diw moo ma arrangé investir loolu nag la ñu gën bëgg a gëmloo président bëgg a teg réalité bi ndax tey boo demee ci coalition bi nga xam ne moom laa nekk muy defar sa gox ñu jëm ko doon ko gàllankoor quatre vingt dix neuf pour cent des des candidats ce sont des de la paire. quatre vingt dix neuf. ci defar ci ñu mën a gagné seen commune la. ci defar sa gox. ci defar sa gox. je pèse bien mon mot. dem na ci 46 départements yëpp. d' accord mais Mara dinañu ñëw département mhm. dina ñëw ci defar sa gox mais lan moo tax nga ne euh, investiture yaa ma neex ak ñu nekk ci palais bi mu am ci benn bokk yaakaar. mais parce que boo gisee yow journaliste nga mën nga mën nga mën nga def investigation yi boo gisee ni ñu investir au niveau des des des communes yenn yi dangay jàpp da ngay xam ne kii bu ñu koy tegee du dem. léegi ñooñu lan moo euh, nekk seen jubluwaay. loolu loolu moo nekk dama jàpp ne lu yàqal président Macky Sall lu ñu moom président jox na leen confiance mais confiance boobu dañ ko trahir parce que it élection bi élection bu sensible la élection la boo xam ne nii président Macky Sall daf ko war a tenir au mais mais mais mais mais mais euh, Mara am na ñoo xam ne liste parallèle yoo xam ne ñenn ñu dañu njort ne président Macky Sall daf cee ànd. waaw mais mais loolu am na loolu moom du ma la nëbb ne la je je peux je peux vous am na liste pareil parce que moom wax na ko wax na ko ca France nee am na liste yoo xam ne moom moo ko taloore mu jàll mu am que ay waa këram la ñuy bañ mu mu tàggali ko. donc am na liste bu ci mel bu ci mel deux mille trente cinq. bu bu ci mel am na ci ay ministre yoo xam ne su ñu amee fitu def ay liste président moo leen ko moo leen ko moo leen dañ ci d' accord. kon yéen est ce que mënuñoo jàpp ne est ne mënuma comprendre nga nekk ci biir cabinet président de la république président dogal ba pare nga dem wut liste. kon da nga jàpp ne Mame Mbaye Niang Macky ne ci ginnaaw. Ah, je comp je pense bien que ne Mame Mbaye Niang mënuma comprendre loolu xaw ma nag mais mënuma comprendre que ne Mame Mbaye Niang di chef de cabinet politique bu président de la république ba pare wut liste deux mille trente cinq am na lu ne luñ lees waxut. léegi euh, est-ce que kon mënuñoo jàpp ne defar sa gox nga xam ne tey mën nañoo wax ne. Euh, Adama fay moo nekk ci bopp bi naam commune bu nekk ak ka ko fa jiite fu si mel ni dindi yow yaa ko fa jiite yow Mara Diop. est-ce que mhm. jàpp ñu ne list boobu tamit Macky moo ne ci ginnaaw. boobu jàpp ma ne président Macky Sall moo nekk ci ginnaaw ndax lu tax defar sa gox Adama Faye bi mu koy créer président Macky Sall dafa jóg daal ne nañu toog déglu ñu man bi ñu ne nañu toog déglu ma dama dama ubbi permanence euh, taxaw ndax trois ans yi ma doon liggéey dama ne du ma liggéey noonu rek bàyyi ko noonu dama ubbi permanence dajale samay militant dajale samay responsable ne leen président nee na nañu toog déglu ko kon nag nañu toog déglu ko militant yëpp d'accord ceeg man ñu demaat benn moment mu dem Kaffrine waxaat fa ne président euh, euh, euh, mu demaat benn moment waxaat fa ne dama doon ñaan ñu reconduire les maires kooku responsable politique bu am fulla am fayda te libre à sa am sa liberté dama jàpp ne loolo président Macky Sall ku ko doon xelal waaye ku ko xelal kooko lu koy rey la bépp bépp président de la république wala bépp chef de parti waroo ne diw mooy sama candidat ay préliminaire dafa war a am wa ilaa ñu wàcc ca gox ba waxtaan ak nit ñi conflit ya fa am ñu jubale leen président war a doo ko kon yow maanaam président président day waxee waxam nga jël ko teggi ko teg teg ko fële. du question maanaam élection locale. du élection présidentielle. élection locale dama dégg nga ne ku am fulaak fayda doo ko nangu. de doo ko nangu parce que élection locale la élection gox goxaat la. dañ bañ na ko bañ na ko da nga jàpp ne président Macky Sall du moom mooy tànnal nit ñi seeni maire. man day président Macky Sall wax dëgg yàlla du ma tànnal maire fii ci Ndindi. je pèse bien mes mots ñoom ñoo ma ñoo ñoom laa doyloo ci ñu tànnal ma kan mooy sama maire sunu maire parce que président bu la tànnalee maire fii ci Ndindy waa Ndindy mën nañ la rejeter tey jàpp naa ne tey élection locale président dafa war a bàyyi gox ba kenn ku ne ci gox ba nga nekk ñu ne candidat yii ñoo fa ñoo fa positionné wu muy candidat ñu toog waxtaane ko ba ñëpp d'accord ci ñu doog a jox président ne ko président Ndindy kat kii lañ tànn ñu seet ne na luñ def buñ buñ defee noonu Mbàkke def foofu noonu jàpp naa ne dañuy gagné. kon yow da nga jàpp ne entourage président Macky Sall bi euh, euh, ñi koy xelal euh, li ñu koy xelal. méngoowul ak réalité politique. déggoowul ak réalité bi. déggoowul ak réalité ce qui se passe ci base bi. ñi koy xelal dañuy toog di di di fooyee seenum xel. <laughs> dañuy toog di foyee seenum xel jàpp toog fa ñu ci pale bi jàpp na ne diw mën naa nekk fee diw mën naa nekk fee diw mën naa nekk fee. ay lobby daal ay lobby daal ak ay xarito moo ci am. ay xarito ki lobby wax naa ko waxati ko moo fa nekk. te ci li ma ci gën a jaaxal dañu ciblé département Diourbel am na loo waxul loo xam ne ci département Diourbel dañu mm-hmm. dem na li ma gën a garaaw yow. Euh, même même département même département Bambey loolu moo fa am frustration. boobu gën a garaaw département Diourbel commune de Ngoye. Mm-hmm. kañu ne moo fa nekk maire keneen lañ lañ jël lañ lañ woo ne ko président nee na nga jiite liste ba muy Sadio Doxate pendant deux mois deux jours muy constituer liste ñu dem ba trois jours jour ba ñu ne ma Malick Fall moo jiite moo jiite liste loolu foo ko gis ce qui est grave kon ça veut ay lobby ñi ngi di yàq wala di di loolu nag militants yi ak responsable yi buñ leen ci bàyyi. mais mais dañu yàgg dégg ñu ne euh, lobby lobby nekk si pale bi ñooy yàqal Macky fanee la dégg nañ kàddu yu fa yu Mahmoud Saleh yëkkati ñeen ñi jàpp ne kàddu yàq la bi mu ne élection locale yi mën nañoo jàpp ne la fay tukkee ni résultat la ñuy nattee deux mille vingt quatre ba xam euh, candidature Macky Sall ba mu xaw a jur coow. loolu d' accord d' accord naa ceeg moom mais certaines questions du ma ci d' accord ak Mahmoud mais loolu d' naa ceeg moom la réalité. loolu nag bañ ba mu ko yëkkatee dañoo waroon a def ay investiture yoo xam ne ëllëg ak si biir résultat yooyu dana mën a jural lu bari Macky président Macky parce que munoo wax ne taxaw publiquement ne élection législative municipalité yi candidat yi ci li ciy jureel mooy doon présidentielle demain nga wëlbatiku saboter des listes yoo xam ne nii partout dans le Sénégal amul fenn foofa dem te contesté wuñ seen liste amul léegi mer moomu nga xam ne moomu nga xam ne frustration boobu ñu bari ber seeni liste euh, ndax bëri na ñoo xamante ni ber nañu ay list ci benn bokk yaakaar mer moomu est-ce que jàppoo ne euh, lu ñu waroon a mën a éviter la te buñ ko éviter wul mën naa bañ a baax ci benn bokk yaakaar. mais wax naa wax naa ko wax naa ko waxati ko. loolu deux trois mois yi passé le président Macky Sall waroon a jël ay matuwaayam par dans les communes mu dajale conflits ya fa nekk. mais noonu làngoom noonu du tuuti ku mer day dem verbe saison parce que dama jàpp ne tey tey je vous donne l'exemple defar sa gox tey dindi tey suñu suñ fekkoon ne cour d'appel joxuñu dëgg du ñu dem di aligné ak euh, maire bi fi nekk dañuy xeex ak moom mu daanu te bu ñu xeexee moom mu daanu ki fiy toogaat opposition la nekk sigil euh, euh, taxawu Sénégal la ne est-ce que loolu arrangé na président Macky Sall mais loolu loolu valable pour man valable na pour ka nga xam ne nekk na ngàcc naaw de valable na ka nga xam ne nekk na Kédougou valable na nga xam ne nekk na mais ñi amul possibilité comme ni nga def bokk ci beneen liste ñi amul possibilité boobu te ñu waroon a eh, te ñoom ñu jàpp ne am nañu doole war nañ leen investir te leen est-ce que du ñu am taxawaay bii nga xamante ne yéen bu ñu annulé woon seen liste bi taxawaay boobu ngeen di am. loolu mooy dikk ci li ma la wax léegi parce que jàpp naa ne tey ki nga xam ne da nga koo xañ taraangaam da nga koo xañ libertem am day xeex yow ba ba am lu ko neex tey amul en politique dañ ne suñu la pesee ci bii leex da nga leen di dolli pesaat ci bee leex buñ la pes ci bii leex nga toog di leen seetaan. d'accord président Macky Sall na wax ak collaborateur am yi ko jege ñu di ko wax dëgg wala mu jëlal yëf affaire am yi en main. d'accord lii raam ca ñag ba li wolof yi naan lii raam ca ñag ba jëm te bu fa amee kër du baax. kon kon da nga njort ne élection yi bu ñu bu ñu deful ndànk. bu ñu deful ndànk ça va être mal très mal sax. ah bon très mal. élection yi ma gis nii. Hmm. suñu ci deful ndànk ça va être très mal. parce que lii Mara Mara li ngay wax liñ la investirul ci benn bokk yaakaar ndindi moo la metti wala réellement li nga gis mooy frustration bi dafa bëri. li ma li ma gis mooy frustration bi dafa bari man que ñu investi ma ci Benno Bokk Yaakaar ñu investi ma ci beneen liste li may am ndindi am naa ko ba noppi xam nga nit bu fekkee li nga liggéey da nga ko wóolu sa bopp ba nga taxaw ne da ngay ndeb la nga bëgg a nekk maire sula sa parti doyloo jox la baax na sula la sa parti doyloowu jox la nga dem xeex ba loo am jël man loolu laa jàppe muy politique gis nga politique du négocier ah def nañ ma lii noo baax na noo ëllëg ak si biir déedéet man politique wu ma noonu. nooy politique xeex. na politique xeex la xeex ba buñ la rayee baax na boo rayee baax na noon mooy politique. sa wàll daal li nga war a sa wàll sa yelleef daal da nga koy jël doo ko négocier. maanaam waruma man dama ne la man na maa bañ a yor dara di lekk suuf xëy bu ma xëyee tëb suuf lekk ba sama biir di xeex ba ba sama biir fees may xeex ak ki yor alal ndax noonu laa mel ci politique. <laughs> jërëjëf Mara Diop mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi Mara Diop moom mooy euh, tête de defar sa gox euh, ci commune bu Ndindi mais Mara euh, dakaar enjeu bi dakaar ci Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi wax Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi wax yeewi yeewi askan wi Barthélémy Dias Abdoulaye Diouf Sarr te gis nañ ne ñenn ñi xalaatoon nañ ne mën nañoo investir Amadou Ba far investir Abdoulaye Diouf Sarr loolu nan ban gis-gis nga si. Eh, nga ci am mara. gis-gis bi ma ci am eh, coalition Benno Bokk Yaakaar mooy xeex coalition Benno Bokk Yaakaar. ah bon. coalition Benno Bokk Yaakaar. Ah. mooy xeex coalition Benno Bokk Yaakaar. parce que jàpp naa ne tey diggante Amadou Ba diggante Ablaye Diouf Sarr président Macky Sall waroon na mën a régler question boobu bu yàgg yàgg yàgg yàgg. ok waroon na question boobu ba nga xam ne nii tey dama jàpp ne bu ëllëgee lépp lu ñuy def. dana doon loo xam ne nii tey coalition Benno Bokk Yaakaar hmm. mën na ko. mais parce que dem nañ fi ay élection Abdoulaye Diouf sax Amadou Ba gagné ko gagné élection yëpp mais buñ demee fii lébu yi jaar ne euh, ñee jaar ne ñee jaar ne ci sibul day am élection mën na mën na mën na mën na mën na yow avec situation bii ñu jóge nii ñi ngi may promotion Barthélémy Dias mais mais est-ce que militant est-ce que est-ce que Amadou Ba sénégalais waaw ku ku ku néewal doole nit la bañ d' accord léegi léegi Mara est ce que militant yi Amadou Ba yi même Amadou Ba mën naa ñëw ñu def ko coordonnateur national benn bokk yaakaar ci local yi mais est ce que ay militant comme xeex bi dafa yàgg te président du àtte xeex euh, est ce que ay militant euh, mën nañoo lànk ba tey. waaw loolu mën na nekk am na ci militant du ñëpp nga mën a du ñëpp nga mën a euh, maîtriser am na militant yoo xam ne mën nga leen a maîtriser ñu defal la la nga bëgg mais am na militant yoo xam ne fa ñuy toll ci yow du ñu nang dara jàll. Abla Amadou Ba je pense que ne gis naa ne moom ku discipliné la ci parti bokkut ak ñun mais nag am na militant yoo xam ne mën nga leen a maîtriser. mais am na militant yoo xam ne lu tax nga ne ku discipliné la bokkut ak ñun. parce que ma jàpp Amadou Ba képp lépp lu ko président Macky Sall wax da koy def bu ko neexee da koy def bu ko naqaree da koy yéen nag. bu non bu dee ñu ne dañuy xool suñu suñu situation dëkk la mu laaj. pour njariñu président comme yow daal li Amadou Ba nangu bu doon maaraam na ko a nangu. déet bu ko nangu wax dëgg yàlla. ndax ah. damay xool sama situation dëkk la mu laaj ci politique politique bu déglu leader bi boo dégloo leader bi base bi vomir la loolu mooy politique boo dégloo leader bi la leader bi bëgg ci base bi du ko am da déglu base bi bu jaree ngay rayanteeg leader bi pour loolu am nga rayanteeg leader bi pour loolu am loolu mooy politique mais bu fekkee ne au début politique danaa jóge ci base bi dem au sommet mais léegi li ñu tàmm politique jóge ci sommet wàcc dem ci base bi loolu loolu loolu loolu loolu mënut a jàppale mënut a mënut jàppale kenn. kon jàpp nga ne benn bokk yaakaar euh, possible na mu ñàkk Dakar mën naa ñàkk mën naa am. ah du ma la du ma ne la de ndax situation Dakar man maîtriser wu ma ko à cent pour cent mais mm-hmm. tendance yi ni mu ni mu ni mu ni mu defee nii ñu ngi may code de popularité Euh, Barthélémy Diaz. na ndax fan yi gis nañ ne boo dee xool presque journaux yi Barthélémy Diaz même ci débat yi ci télé yi Barthélémy Diaz la ñuy wax mel ni ñu fàtte yeneen candidats yi. loolu effectivement loolu mooy lima la ne boo booy xool ci tendance ni mu demee nii ñi ngi may code de popularité Barthélémy Diaz parce que bu fekkee ne dañ koy convoqué indi ko ñu naan ña ngi koy néewal doole parce que lamu mu la mu posé candidat la moo tax loolu daf koy may promotion. ok. léegi euh, Mara Diop euh, ñu ñëw ci euh, liste defar defar sa gox. Mhm. yow yow yaa nekk tête de liste ci commune bu Ndindi. rejet dañu mhm. rejeté woon seen liste boobu. léegi delloo si waat nañ ko est-ce que delloo si waat nañ ko ci ci ci commune yi ngeen déposé woon yëpp. waaw dans ci département Diourbel communes yi ñu déposé woon yëpp delloo si nañ ko. ndax bi ñu. Ah, préfet kon kon du Ndindi kese ci département Diourbel. du commune du Ndindi kese ndax commune nu euh, commune nu Dànk Seen commune nu Ndula ak commune nu trois trois communes yi liste bi demoon na ci dans ci département Diourbel donc ñun ñëpp ñoo bokkoon benn motif bu nu rejeté bi demee ñu préfet woo ma ma ñëw mu notifié ma ko wax ma ne ma ma laaj ko ne ko préfet ci ban base nga sukkandiku ba parce que dama jàpp ne su fekkee ne day da ngay notifié nang mu jóge au sommet dañ lay bindal ne la nangam ak nangam mu ne ma no ci au sommet la jógee mënuma ci dala il faut que nga xool ko noo ko noo ko noo ko lijjante au sommet donc ma xam ne toute décision administrative attaquée au justice ma ne ma dem ci yoon. mais mais kan moo la wax décision la sommet bi si kaw la jógee. le préfet lui-même. mais lan mooy loolu mara mais loolu mara mooy lan. mais le préfet lui-même moo ma wax dafa war xool dafa war a xool moom si ay compétence am xool ba xam dafa ko war a rejeté wala war a ko rejeté. mais loolu moo tax ma ne la am na préfet yoo xam ne dama leen di sant di leen gërëm parce que seen matuwaay seen i mat wane nañ ko mais am na préfet yoo xam ne man mënuma comprendre administrateur civil ñu yëkkati téléphone nan la defal nangam rek nga def ko sans autant que parce que. administration écrit noir sur blanc lay la war a kon da nga jàpp ne loxo politique moo ne woon ci ginnaaw. loxo politique moo ci ne woon effectivement parce que xam nañ ne candidat defar sa gox bu demee dindi daaneel candidat Benno Bokk Yaakaar loolu loolu c'est la réalité. ñëpp xam euh, yow nan nga mën a gagné Cheikh Seck mi nga xam ne moo nekk candidat moo nekk maire nekk candidat Benno Bokk Yaakaar nan ko mën a euh, gagné ak defar sa gox. Euh, jàpp naa ne nañ lañ ko mën a gagné du lu ñuy wax lu ñuy liggéey la te liggéey nañ ko ñun. trois ans ngi nii wàcc ñu base bi génnuñu ci nit ñi xebaluñ kenn soxlaam taxaw jigéen ñi taxaw xale yi ASC yi école yi yëpp dañ leen a taxaw. mais lii nga fa taxawu tamit est-ce que maire bi defu fa lu mel noonu wala lu ko raw. maanaam maanaam tumuranke gu ko ndindi tumuranke moo tax man ma wàcc def ko maanaam ndindi tey fii may wax ak yow ba tey fourniture scolaire ndindi jotagu ko boobu ba léegi kañ la école ubbi. man li ma joxe ci fourniture scolaire kenn dafa xam nu mu toll. d'accord man mais... nekk naa maire man nekk naa maire te élection jotagutoon yàgg na fu ma génn monsieur le maire lañ may wooye parce que jëfi monsieur le maire laay def. waaye booy seet parrainage yi fi am yëpp dans la commune bi nawet bi kii bi jotee ba léegi man la donc am na loo xam ne mënu ma ko waxal sama bopp. léegi lan moo tax lan moo tax investiruñ la ci commune bi. ay lobi ay lobby moo tax ñoom xam nañ xel ne Mara Diop ca Ndindi bu ñu ko investir balaa 11h mu lamine gars yi investir bu ñu ma investir balaa 11h ma lamine gars yi gis sur les 43 dama lay wax ben sur les 43 villages yi nga xam ne moo composé commune yu nit les 16 amoo amul benn dëkk boo fay dugg ñu ne la emploi yi Mara Diop amul ko joxewu ko wala ñu ne la kees bii Mara Diop tegu ko fi ñu ngi fi ne jigéen ñi dañoo autonome soxlaatun banque jigéen ñi dañoo autonome soxlaatun banque. grâce à man. mais mais est-ce que tamit Mara. Euh, ministre Dame Diop nekkul sa ginnaaw. no ministre Dame Diop dama koy sant di ko gërëm parce que wax dëgg yàlla. non li tax ñu laaj la euh, ko mooy dañu déggoon moom ak euh, Cheikh Seck. non ministre Dame Diop président Macky Sall moo ko yitteel fépp ndaw président Macky Sall nekk dana ko soutenir dana ko jàppale. fépp foo xam ne APR nekk na fa dana ko soutenir dana ko jàppale. kon yow lay jàppale. donc munuma nekk ci cabinet di liggéey yenn liggéey parti bi parce que loolu bi bu ñuy jàppale pour suqali parti bi la dañu nekk ci coalition mais na kenn ku ne kër kër gu ne bu jógee kër baay daa gën nag. kon yow kon daam kon daam Diop yow la jàppale dugg sa kër baay dafa gën loo gis. kon yow la daam Diop di jàppale. donc du euh, daam Diop ñëpp la coalition bi yëpp lay jàppale. amul kenn kum ciy bàyyi coalition bi yëpp lu tax bàyyi loowu la mais daal maa ngi koy fàttali lu tax bàyyi loowu te nga nekk si cabinet non parce que xam na réalité yi nekk ci biir Ndindi. xam na réalité yi xam na su bàyyiloo doo bàyyi. non non man bu ma bàyyiloo damay bàyyi mais xam na réalité yi parce que bu ma bàyyiloo xam na ne bu ma bàyyiloo opposition ñàkk gañe Ndindi Dame Diop xam na loolu. xam na ne bu ne ma bàyyil ma bàyyi opposition dina ñàkk ndi opposition gañe Ndindi. Ah, moo tax mu bàyyi parce que le maire est illégitime pour kii ci nit ñi. amul benn dëkk day dugg benn dëkk ñu ne ko jógal dem. parce que élection boobu élection euh, kii la koy gëjoon présidentielle la gëjoon ci dëkk kan si toog nañ moom seex toog nañ benn màggal barki démb ñun ñaar ñëpp ñu toog ci màggal sëriñ bi pero la mu ko wax dafa gàcce la sax su ma la gisee ba gis élection moo jub mais loolu ci responsable politique ñu ne yaay maire ba heure buñ la gisee da ngaa soxla nit ñi su la nit ñi soxlaa nga daw dem tëju sëm néeg mais mais dam Diop mi nekk coordonnateur euh, départemental Euh, lan moo tax mënut a lijjanti problème yi am ci département bu Diourbel bi. no problème yi def am ci département bi Diourbel def na ci maximum possible mais est-ce que bu Dame Diop amee ñu koy xeex nag ci département bi. Ah, te nekk dafa am ñu koy xeex. dafa bu amee dama ne amee ñu koy xeex ñoo xam ne ñu ngi ci biir palais bi di ko xeex nag. ah di ko xeex ci département bi. di xeex ci département bi. dafa am ñu dëkk ci dafa am ñu dëkk si ci région de Diourbel. nekk palais di ko xeex. di xeex Dame Diop. te nekk ci région de Diourbel nekk di xeex Dame Diop. di di xeex bu metti daam Diop te nëbbu ñu ci làqu ñu ci. mais nag ñooñu dananu leen wan ne leen. mais ñooñu est-ce que kon est-ce que ñooñu kon bu seen pexe sotti woon daam dina nekk euh, dina jiitale si benn bokk yaakaar ci commune. bu mais waxuma la bu seen pexe mais da seen pexe woon daam du a nekk sax bay jiitali si départemental. loolu moo xeex boobu lan moo ko si waral entre. déggoo mën a la ca Dakar déggoo mën a la. Oh, coalition Benno Bokk Yaakaar mooy xeex coalition Benno Bokk Yaakaar mais boo dikkee ci région de Diourbel APR mooy xeex APR. APR ñooy xeex APR ci région de Diourbel APR boo dikkee ci région de Diourbel te ñooñu on va lui montrer que ne ñoom duñu représenté wuñ benn tiers ci dëkk bi parce que bañ leen joxe mote wuñ ko doxe wuñ ko bañ leen joxe pour ñu li compétent bu am liggéey bu mën a liggéey sax amuñu ko ñoom. amuñu xam-xamu amuñu xam-xamu nekk ministre. ma ne jox nañ leen fii ministre joxaat leen fii te amuñu sax xam-xam pour nekk ministre ndax tax président bi leen frigo loolu loolu président xam na ko moom. ok te bu wax jotee. dananu wax dananu duut baaraam dananu leen noppi leen. d' accord léegi Mara Diop euh, yow nga nekk attaché de cabinet ministre Dame Diop mu mu jiite liste benn bokk yaakaar ci commune bu jurbeel est ce que am nga yaakaar benn bokk yaakaar gañe ci commune Diourbel par rapport taxawaayu Dame Diop ci commune bi. waaw loolu moom loolu moom euh, Abdou Khadre am naa ci yaakaar à cent pour cent parce que it Dame Diop bi ñu ko jiitalee rakkam yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo àndoon ci coalition bi kenn ku ne bëggoon dafa ñëw nangul ko jiital googu ñu ko jiital loolu maa ngi ciy remercier Moustapha Gueye remercier Fat Diané remercier ci docteur Soumaré remercier ci ñëpp ñu nga xam ne euh, tey ñoo nekk ay responsable dëkk biir Diourbel tey commune Diourbel jàpp naa ne opposition amatu fa wax ja dañuy wax rek commune du Diourbel opposition amatu fa la fa président Macky Sall def def wala ak la fa président Macky Sall jox suñu mànkoo doon benn balaa onze heures ndam la dem mais kon li yow na ngi ne opposition amatu fa ndax kon mbaadu li ñuy tuumaal euh, Dame Diop ne dafa bawaliser ministère am bi moo tax ñi ñuy wax dañoo dafa bawaliser ministère bi loolu fierté la man dama jàpp ne loolu fierté la ci bépp responsable politique boo xam ne nii tey da ngay da ngay da da ngay opté pour nekk dara parce que Abdou Khadre tolloon nañ fi jamono ne da daa wax le les responsabilités ne se trouvent pas a Fatick boo doon xool ñaata responsable la ñu nommé woon Fatick président Macky Sall fa la soq ko donc yow moomu sa direction boobu nga yor booy xool sa quartier ba nga dëkk ñaata responsabilité ñoo fay nekk depuis wu ko pour bawliser ko day xal ne doomu bawol bi am na compétent pour yor lii mu dénk ko. d' accord moom lu doomu bawol am compétent du ko jëgaani feneen da la koy dénk. d' accord mais est ce que euh, Fat Diané ak euh, Moustapha Guèye euh, ànd nañu ci décision président mais est ce que au fond intérieur di nga dinañu wàcc campagne normale avec sincérité pour daam gagné commune bi. jàpp naa boo gisee boo gisee ni nga gisee ne daam Diop tëgg na ko liste bi ndax bi mu dégg jiitoo liste proportionnel Fat Diané la ci teg donc kon Moustapha ak Dame ak Fat Diané lépp décision bu leen président jox dañ koy def lu mu métti métti métti métti xam naa xam naa kan mooy Moustapha xam naa kan mooy Fat Diané yow daal la ñuy jox décision nga bañ koo jëfe ci département bi. Ah, déet man buñ ma joxee décision ma jëfe ko waaye. ak décision bi kay jëfe woo ko ndax dañ na la demal topp ci benn bokk yaar nga lànk dem sa liste parallèle. déet benn booba réalité yi am ba est-ce que wax la benn affaire Benno Bokk Yaakaar musta exister à Ndindi depuis benn boo Bokk Yaakaar am ba léegi. amul coordination yu ñëw dañuy séparé amul coordination. amul coordination élection yu ñëw dañuy séparé wu. élection yi yu paase APR dafa dem ak boppam parti socialiste dem ak boppam. ku ne di campagne campagne am. ne campagne campagne boppam. élection maire yee passé noonu la demee woon. président yabal na unité kon APR kon APR ndindi yow lañ àndal. APR APR coalition bi man lañ àndal ndindi tax boo ñëwee réew mi le coordonnateur de réew mi mi ngi ci man le coordonnateur de de AFP mi ngi ci man. ñooñu boole nga leen ci liste bi. boole naa leen sama liste. pour fait parti socialiste rek moo demee coalition Benno Bokk Yaakaar parti socialiste seulement. et puis li gën a mooy coordinateur du parti socialiste am na des listes parallèles dans tous les communes ba pare fii mu ñëw jël coalition euh, euh, Benno Bokk Yaakaar dema ko ci parti socialiste. d' accord jërëjëf euh, Mara Diop mbokk yi moom <coughs> mu bokk ci coalition defar sa gox mu jiite defar sa gox ci commune bu Ndindi Ndindi nekk ci département bu Diourbel. Euh, Mara Diop euh, yéen ñi nga xam ne yéen def ay list parallèle ay Mara Diop euh, Mame Boye Diao. Mm-hmm. Mary Teuw Niane Adama fay ki jiite ko se xaw ma nan John. yéen ak ñeneen ah. ak ñeneen sëñ Jili Mbacke Darou Moussi. sëñ Jili Mbacke Darou mm-hmm. Sow bi jiite COJER. Mm-hmm. ak ñeneen ñu baree baree bari est-ce que après élection yi. yéen ngi xalaat ay daan. président sanctionné leen loolu bu fekkee man ci sama cas sama sama situation bopp. ñama mel noonu la ñooñu mel daan bu mën a ñëw mën nañ ko assumer parce que dama jàpp ne ñun pour libérer APR ci gox yi ñu nekk sauver APR ci gox yi ñu nekk moo tax ñu ñun ñu ñu ber suñuy parallèle parce que dama commune yooyu yëpp nga wax tey suñu fa berutoon liste APR da coalition bi ñàkk fa est-ce que xam nga loolu commune yooyu yëpp ñu waa suñu fa bérutoon liste ñi fa béré liste parallèle suñu ko ko defutoon coalition bi ñàkk ko daan bu ñëw nag man dindi jaral na ma ko man dindi jaral na ma ma bàyyi sama lépp ñu xañ ma lépp bàyyi maa ngi dindi foofu laa ci ndindi kon daal dawoo ci dara dama ko def sama xol dawoo ci dara ragaloo ci dara. dawuma ci dara ragaluma ci dara. te ñi am te ñi te ñi berse te ñi berse liste buñ ma ci doon tëj ci kaso pare naa pour ñu tëj ma ci kaso. tey te ñi te te ñi ber seen liste jàpp nga ne lu normal lañ def. lu normal lañ def dama leen ci encouragé di leen ci félicité te xam ne loolu ndam lañ ci amee. mais xëtt xëtt ndigal. da loolu lu xëtt ndigal maanaam politique ndigal amu ci politique conviction la am ndigal amu ci ndigal ca kër sëriñ ba la yam ndigal ca jàkka ja la yam mais politique mais da ngeen nekk si benn kuréel da ngeen nekk si benn kuréel. ñu war a respecter charte kuréel yi. ma war a respecter charte kuréel yooyu du tax nga sacrifier sab dëkk parce que la tax kuréel ba respecter la mooy sab dëkk tey su fekkee ne tey da nga wan gannaaw sa dëkk dem ci déglu ci kuréel ba sa bu yàggee kuréel ba bala gis nga politique bu la ci kenn nax soo du déglu base bi bu yàggee responsable bi sànni la ca àll ba. d'accord soo dee déglu base bi. noo manti mel responsable bi dina la téye. d'accord mais gis nañu ne euh, liste yu baree baree bari. Euh, dañu ko rejeté yeewi askan wi gëm sa bopp wàllu Sénégal euh, rejet yu mel nii daawuñu ko nemmeeku bu njëkk naa bien vrai que ñu bari tamit gis nañ ne magistrat yi maanaam àttekat yi ñoo naan jubbanti nañ sous préfet yi ak préfet yi euh, coow loolu lan moo ci saxlaat xalaat waaw man dama jàpp ne ni ñu changé électoral bi ni ñu changé système électoral moo waral rejet yu bari yooyu parce que de euh, il faut nga respecter parité bi ba pare il faut nga candidat yi kenn candidat bu ne dafa war a am déclaration de candidature mu signé benn du ci manque ba pare il faut que aussi nit ñi ñu war leen a mën a jàngal nan la investir wala ñu war leen a mën a jàngal nan la ñuy demee élection tey man bi may dem élection dama indi code électoral bi indi samay jeunes teg leen ne leen wax leen mi ngi nii donc loolu bu fekkee tey da nga xëy xëy xëy xëy mer gàddu dem wuti sa boo dikkee nan ngay investi nan ngay investir doo xam ci li ngay investir dara bari na ci ñoo xam ne dañ leen a rejeté rejet bañ leen def ñoo ko teg seen bopp mais bari na ci ñoo xam ne tey magistrat yi boo leen yóbboo ci cour boo boo defee recours yóbbu magistrat yi dañ lay àtte ci yoon. man ah kon da nga jàpp ne daal danga nga jàpp ne manque d' bokk na ci. manque d' expérience bari na ci lu baree baree ci ñu bari ñoo xam ne nii dañ leen a manque d' expérience bari na ci. mais jàpp nga ne loxo politique mën naane ne si ginnaaw. mais loxo politique lu mu nekk ci ginnaaw nekk ci ginnaaw dëkk bi am na yoon man sama kaar loxo politique mi ngi woon ci ginnaawam waaye dama dem yóbbu ci yoon ñu ñu ñu saafara ko dëkk bi am na yoon. li sart yi la code électoral wax sart yi la code électoral wax nga ne la ne la def ko foo ko defee politique munu cee dugg dugg bañ xañ la. mais est-ce que sous yi ak euh, préfet yi euh, ëpp lu ñu ci seenub liggéey aussi. waaw foofu moom dañoo abuser seeni seeni seen i pouvoir dañu seen liggéey parce que dama jàpp ne sous préfet bu ne ci war na mën a taxaw taxawaayu président de la république waaye war na mën a taxaw taxawaayu taxawu ca askan wa tey ba bay kenn bañ la influencer kenn bañ la gëm-gëm looloo parce que loo def tey fii bu ëllëgee da nga koy def yamal xiyam te yamal xiyam tuur sew na de sew na sew goo xam ne tey boo fa defee dara loo xam ne ci sag bànneex wala ci bëgg lu neex président wala ci bëgg lu neex ministre de l'intérieur moo tax nga def ko bu yamal xëyaamee da nga fa sonn dañu ëppal ci seeni décision d'accord jërëjëf euh, Mara Diop yow yaa jiite euh, defar sa gox ci commune bu Ndindi mais élection locale yi dañu gis ne dafa bëri ay enjeu gis nañ ne ay kilifa ay ministre ku ne di xëccoo pour jiite commune mu mel ni dayo bi ñu ko jox euh, bu njëkk dafa mel ni bàyyi yu ñu woon a xel sax élection locale yi noonu mu mel dafa intéressé homme politique mu na aussi askan bi waaw loolu xam nga lu ko waral dans deux mois dans deux ans ñu dem élection présidentielle beneen recomposition politique mooy taxaw recomposition politique boobu il faut que yow nga am sa saw askan yabal la pour ñu mën a wax ak yow enjeu boobu ci nekk moo tax tey beneen bi ci des muy parti euh, coalition Benno Bokk Yaakaar ci la gën a dangereux parce que enjeu bi nga xam ne moom la amee ci élection locale yi mooy que élection bi Mahmoud Saleh wax na ko élection bi test la ci élection présidentielle suñu ñàkkee les collectivités les les cinquante pour cent des collectivités locales troisième mandat ba ñuy laam-laamee danañ ko teg ci suuf. troisième mandat ah ñan ña koy laam-laamee. <laughs> ah ñi ngi koy laam ñi ngi koy laam-laamee danañ ko teg ci suuf mais bu fekkee ne tey. mais am na ci locale bi waaw. bu fekkee tey élection locale bi quatre vingt pour cent des des des de des des des communes président Macky Sall na ko. lépp lu mu bëgg ci réew mën na ko def mais bu fekkee gañëwu ko opposition bi dañ koy barrer laaru léegi layam layam bi ngay ak di ko laam-laamee laam-laamee troisième mandat mm-hmm. laam-laamee boobu euh, ndax lu ñu woon fu ñu war a yeewee nit ñi ñu xam ne troisième mandat du am li waral nit ñi di si wax mu intéressé leen dañu gis ne troisième mandat bi ñu fi doon xeex ñu bari ñàkkoon nañ seen bakkan dama jàpp ne conseil constitutionnel loolu atte na ci te Euh, boo xoolee ci code ele conseil constitutionnel li mu ci dogal tey jàpp naa ne troisième manda du troisième manda sax waruñu ko tudde troisième manda deuxième quinquennat lañ ko war a tudde waruñu ko tudde troisième manda mais xam nga loolu loolu it pour pour pour pour yàlla def ñu def ko ci jàmm am mu am ci jàmm président Macky Sall na investir na nañu investir investiture bu baax boo xam ne nii tey. askan wi kenn ku ne ci fa nga nekk nit ña doyloo na ne dana la jàppale. mais xam nga Mara boo xoolee ay texte buñ koy bind euh, texte bi buñ koy bind dafa am euh, lu ñuy sukkandiku lan mooy euh, lan moo ko waral maanaam lan mooy historique bi ba nga xamante ni tey li taxoon ñu koy def mbirum troisième mandat dafa am lu xewoon. ñu ko doon xeex président Macky Sall wàcc si mbedd mi naan troisième mandat warut am bakkan yu bari am ñu bind ci ci suñu constitution lu jëm si wàllum ñetteelu man moralement est-ce que lu war a am la. ginnaaw loolu moo taxoon ginnaaw ginnaaw gisoon nañ ne xeex nañ ko bañ soppi constitution bi. waaw loolu loolu loolu loolu loolu man jàpp naa ne jàpp naa constitution bi li mu ci wax lu leer la te comme du ma juriste euh, bëgguma ci sori noonu euh, le reste constitution bi dina ci àtte mais man jàpp naa ne ci li ma sukkandiku ci wax Barthélémy Diaz nee na président Macky Sall am na droit pour am troisième mandat. loolu même bu amee droit def ko moralement aussi. mais mais constitution du moral. c'est noir et blanc écrit sur noir et blanc. y a des nga xam ne nag si su ko yoon dogalee njiitu réew mi nag mooy am fulla ak fayda lépp lu ko yoon tegg ci loola mu teg mu teg la ca yoon. loolu moom amul moral maanaam tey bu fekkee constitution bi dogal na ne. Macky Sall war na am troisième manda loola Macky Sall mooy am fulla ak fayday boppam yoo xam ne ku teggi loola mu teg la ci yoon. léegi su jàppee ne warul am troisième mandat. mu ñu mu libéré la porte kenn ku ne dem loolu kat moom euh, c'est pas la fin du monde. d'accord su constitution bi nee na wërta na am troisième manda forcing waru cee am. d'accord léegi dafa war a bàyyi dem. léegi euh, Mara euh, loolu mooy sax xalaat mais am na ñu bari ñoo xamante ni wóoluwuñu constitution bi ñi ko jiite ndax dañuy jàpp ne euh, li neex Macky Sall la ñuy def ndax Macky Sall président Macky Sall moom ci boppam gisoon nañ de avant 2012 mu doon ŋàññi con ñi nekkoon ci conseil constitutionnel. conseil constitutionnel moom ñi ca nekk la ci constitution bi bind la ñuy wax. bu leen Macky Sall dañu gisoon président Macky Sall bi mu nekk oppo opposant doon ŋàññi conseil constitutionnel Mara. dama ne keneen ñii di ŋàññi conseil constitutionnel ëllëg bu ñu ñëwoon ñoo koy tàgg. mais est ce que loolu moo war a nekk taxawaayu. ndax yow ma mi ngi aajo ci ngëm-ngëmu nit ki. d' accord léegi léegi Mara euh, ñu euh, jeexal ci ci commune bu yow est ce que Mara réellement am nga programme. si am nañu programme boo xam ne nii euh, jàpp naa ne ci fan yu néew dana nu def assemblée générale tëral lancer suñu programme. non programme bu bu réalisable. bu réaliste boo xam ne ñun duñu ne. danañ fi indi goudron danañ fi def lii ñun dañu bëgg lépp loo xam ne dañu koy wax askan wi mu doon loo xam ne nii suñu toogee deux ans trois ans war loolu doon lu réalité lu am tey te loolu la ñu gëm moom la ñuy doxee man bi ñuy tëgg programme bi dama leen ne bu ñu tëgg programme boo xam ne pour bëgg lu neex askan wi wala bëgg lu askan wi lu ñuy dégg lu neex ba tax ñu ne li dinañ def lii te loola duñ ko mën a def ñun lépp loo xam ne nii tëgg nañ ko ci suñ programme taxaw nañ ne lii bu soobee yàlla bala ñuy dem parce que euh, sama papa daf ma daa wax benn benn kàddu bu am solo fal bu njëkk askan wi ñoo la koy fal waaye sa beneen fal yaa koy fal sa bopp ñun foofu laa tënk sama programme. d'accord léegi euh, euh, Mara Diop dañu dégg Alioune mu ne war nañoo mën a dàq élection yi yow lan moo ci sa gis-gis. waaw moo loolu xalaatam la wax mais jàpp naa ne ay processus bi fi mu egg nii ay nga dàq élection yi beneen fi na ngay ndax bu fekkee jàmm rek la ñuy woote jàmm rek lañu ñu bëgg processus bi tellu na foo xam ne mënoo dem ba ñu afficher liste dem ba nga xam ne pré campagne dugg na nit ñi di dem ci biir ngay proposer dàq élection yi loolu loolu loolu loolu wax ju yàqu la. kon daal yow euh, àndoo ci aussi. ànduma ci ñu dàq élection yi nañu dem élection. d' accord waaye mais est ce que tamit euh, Mara Diop euh, yow par rapport euh, li dox sa digganteeg maire Cheikh Seck mën nañoo jàpp ne dafa mel ni lu dépassé sax wàllum wàllum adversité waaye wàllum animosité sax dafa mel ni moom seen diggante. wala demee animosité animosité bu amee ci moom la moom la fete ndax damay damay at fàttali Sénégalais yu bari xam ne sama papa moo ko dugal ci parti socialiste. sama papa il était le président union nationale des coopératives agricoles tolloon na jamono yoo xam ne ci département Diourbel ñett ñoo fi daa tënk muy Yuga Fall Socé Niang ak Serigne Diop moom mu doonoon sama booy papa sama papa ko njëkk a dugal Sodewa donc kon jàpp naa ne loolu moom bu doon fàttaliku loolu animosité du am suñu diggante man ak moom te loolu man lu may lu may lu may sàmm la ngir ëllëg sama yaay nekkoon na responsable des femmes socialistes ba ni mu toogee nii bàyyi moo nekkoon responsable des femmes sociales donc kon loolu jàpp naa ne c'est la famille mais nag nit dina demee noo xam ne tey du dutoo ko bëggatee bokkandoo ci lenn ndax lan comportement ak jikkoom ak wax ju sewam gis nga àdduna dafa am foo xam ne bu ci doomu aadama tolloo mënatoo koo xañ àddunaam ci lenn suñu borom mooy maye. seex bu demee bay yenn kii mu am ko ci ci ndindi problème am parce que ndindee ko porté yóbbu ko ba au niveau national ndindee ko sama mag moo ko daal dawal lu ne mu defal ko ko donc animosité bu ci amee ci côté la. d'accord nag ñun yàlla yàlla bari na. d'accord jërëjëf euh, Mara Diop euh, maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen émission yi di leen sant bu baax a baax a baax surtout yow Abdou Khadre vraiment gis naa ne fierté Bawol nga ndax yow ñu yaa ngi tooñ daam ñoo ngi tooñ daam jom nag naan dafa bawoliser kii bi mais yow it information information. <laughs> d' accord euh, jërëjëf Mara Diop ñu koy jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ci émission bi. mbokki li mu nekkoon seen émission euh, pencum réew mi muy am ci rajo réew mi FM 97.5 ci dakaar samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h euh, Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci kàddu gi moom Mamadou Diaw jàll moo nekkoon ci wàllu machine bi Mara Diop nag. moom responsable politique APR la ci commune bu Ndindi Ndindi nekk ci département bu jur bel moom moo nekk euh, moom moo jiitee liste defar euh, liste defar sa gox ci commune bu Ndindi moom la ñu invité woon tey kon mbokk jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw incha allah.